cet avocat français de Ousmane Sonko Juan Branco ak ni mu euh, duggee Sénégal ni mu doon tooñee Macky Sall ba ñu teree ko mu dugg fi mu ñëw fii ñu rapatrier waat ko delloo ko dëkkam cette affaire lan la lay inspiré est-ce que est-ce que nos nos nos bien pris en charge ce ce dossier. ça m'a fait mal ça m'a mal euh, d'autant plus liñ ko. ba bañ ko njëkkee mu ñëw rek ñu yóbbu ko. Mhm. violence boobu. ci loolu foofu sax la mel nii. ça m'a fait mal moom tamit mu xeex ko xeexu xol. moom xeexu xol. sama m'a mal ni mu duggee Sénégal def ñu def ñu def lu ko neex def dem. Mhm. ça fait mal parce que état la ñu yor moo tax état du caaxaan. c'est que état du caaxaan quoi te ko inculpé chef d'accusation yu bëree bëri. non prison ba kenn ñu bëri naan perpète lu kenn xamul. prison Dakar bi kenn waru faa des. waaw mhm. <laughs> non bu ñu waxee. ko inculpé woon dafa bëri. ah non bu dee wala procureur yëpp ñu bokk. Mhm. bu dee procureur li mu waxal xawaan yëpp xawaan moo ko def. ba pare ñu bàyyi ko mu ñibbi. ñu bàyyi ko mu ñibbi. nañ libéré président non xanaa dañ ko doon wat ndel sax. waaw loolu mooy yoon bala nga dugg rëbës. waaw maanaam dossier bi. gars yi géré nañ ko mais am na ñu doon xalaat lu bëri bëri ni tubaab ak ni ku ñuul bokkul ci prison yi. non loolu mooy erreur bi. Mhm. gis nga moo tax état du dugg ci ay coow yu mel nii. waaw waaw il faut agir intelligemment. gis nga état dañ lay saaga nga mën a fayu nga bañ a fayu état du Mamadou Awa boo nekkee boo représenté état dangay ngay fàtte sa bopp nit mën na la def euh, booy lire le duc d'Orléans ba mu nekkee euh, je pense c'était Louis quinze ou Louis seize euh, dafa am ñu mu doon amal problème quand il est devenu roi ñooñu ñëw di ko baalu quoi pour li mu leen tooñee mu leen duc d'Orléans le roi de France war na rus di venger wu euh, en tant que ba mu nekk duc d'Orléans li mm-hmm. ngeen ko doon def war na rus di venger wu loolu ndaxte bu la yàlla mayee nga nekk buur la nga lu bëri da koy danga koy. da nga koy c'est ce que les gens disent un ci Macky Sall bi ko. Karim Wade dàqaloowee ci régime libéral bi mu nekk président waroon na nekk au-dessus de de tout mais c'est loolu mooy grandeur. Mm-hmm. grandeur mooy le prophète Mohammed ba mu duggee Makka lan la ko lan la ko lan la ko waa Makka deful. Mm-hmm. Abou Sofiane mais lan la def son plus grand ennemi dafa ne ku dugg këram sax bu ko kenn topp. bàl leen ko. parce que loolu mooy tax nga moom laa naan Macky Sall bu ko Ousmane Sonko remplacé woon. bu ko mhm. Ousmane Sonko defee dara ñii ñax Ousmane Sonko la ñu xeeb. Mhm. parce que jàpp ni nit yaa ngi doon nit bu la bu la nit tooñee nga mën a fayu nga ne man état laa xajuma ci kenn.